tey bu ñu nee ci senegal Ousmane Sonko ñun ñëpp gis nañu ndeysaan futti na gouvernement Macky Sall bi tey def ko taatu neen boobu mooy kàddu bi gën a rafet ngeen jéggal ma ci kàddu yi parce que lépp lu mu wax ci senegal gis nañ ko balaa jant sow tey amaana li mu wax yëpp noon nañ koo bañ a gis li muy wax ci inondation yeeg attentat terroriste yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen mais mënoon nañ koo bañ a gis ba Macky Sall dem après mbir yi di feeñ mais déedéet yàlla dafa ne du ma bàyyee noonu de Macky Sall nee na ren mooy atam bu mujj plateforme wax bu mu dem dinaa indi ay preuve pour won àdduna bi ne dafay fen xam nga yàlla lii la defoon Firawuna Firawuna ba mu beewee gis boppam yàlla ma mënoon naa rey Firawuna géej gi won na ko te kenn du gis néewam déedéet dafa ne dinaa toroxal Firawuna ma jël moom yaramam jëmmam ji ma génnewaat ko pour àdduna bi yëpp xam ne tekkiwul dara pour àdduna bi yëpp xam ne moom soskat la te nit la koo xam ne du waxkatu dëgg te dinaa ko vilipande ci kanamu àdduna bi yëpp ngeen gis ko Macky Sall ba muy jël nguur gii Firawuna la jël comme misaal boo waxee Firawuna lii Firawuna lale Firawuna lii Firawuna lale yàlla tamit moom yàlla moomu ci àdduna bu mujj bii mu promettre ñu ñun jullit yi bépp doomu aadama bu nekk ci lu dul dëgg man yàlla may borom dëgg bi te xam naa lépp te dinaa ko leeral looloo waral tey ngeen gis Macky sàll mii lépp lu mu waxoon ci ay sos def naa fii quarante cinq milliards yàlla génnee ay fenam def naa fii amélioré naa lii yàlla génne ay kàccam jënd naa BRT yàlla indi ay fenam jënd naa train express régional yàlla indi tàppale yi indil ñu misaal yi ci yeneen réew yeneen réew yi Donc Macky Sall a été mis à nu par ses propres mensonges. il faut que doomu aadama xam ne doomu aadama xam ne le président Ousmane Sonko est un symbole de la dignité dinaa leen ko faram-pàcceel Maham Gandhi vingt et un de grève de la fin la def maanaam ñaar fukki fan ak benn ci xiifal Mandela ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la def ci xiifal président Ousmane Sonko encore une fois déglu leen lii def fanweeri fan ak ñeent xam ngeen diggante Maham Gandhi ak Nelson Mandela ñaata fan moo ci dox juróom-benn ñii naan juróom-ñaari fan. xam ngeen diggante Ousmane Sonko ak Nelson Mandela ñaata fan ci dox juróom-ñaar juróom-benn exactement xool leen le président Ousmane Sonko comment il est calculé lépp lu muy def ziar naa la ziar ziar ziar activiste ñu ngi leen di ziar voilà kooku defe naa sama euh, capitaine la jiji kooku du jiji wala ah ah xanaa waaw ñu di ziar bu baax di ziar nak suñu xarit yi fi na yëpp di ñu déglu. di ñaan yàlla lépp loo xam ne tey yëkkati nañ ko wax ko fi ci ay kàddu muy doon loo xam ne jariñu Sénégal la te li gën a important moom laa bëgg a tëjee waxtaan bi tey la diaspora sénégalaise ba ci France ba ci Allemagne waa Europe yéen ñëpp invité naa leen Amérique Nations Unies c'est jiji jiji ziar naa la baax a baax a baax Nations Unies ñu ngi ko programmé le 17 18 19 maanaam Macky Sall ñu ngi jàpp ne le 19 la war a jël kàddu dañuy ñaan sénégalais àdduna bi yépp ngeen jël vacances comme ni ngeen ko defee woon cour pénal international bañ fa dajee ñépp tëdd fa ñuy ñaan doomu sénégalais ñu defee ko noonu bi yoon Nations Unies bu New York amaana sax dinañu am surprise bu mag a mag a mag bugguma ko wax ci kaw toile bi waaye gëm naa ne surprise boobu buñ ko amee dina am tollé ci gouvernement américain bi parce que ñoom ndeysaan il vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu dans l'histoire de l'Amérique te ragal naa ne keroog Nations Unies dina riir te Macky Sall dina fa jële gàcce boo xam ne boo moytuwul keroog dina xaru ci biir Nations Unies bi wala mu génnee buntu ginnaaw gi te dootu kenn dootul gis kanamam ba faw moo tax ñu ngi leen di invité yéen ñëpp yéen ñëpp nag laa wax Europe Asie Australie Amérique fépp fu waay mën a ne le 17 le 18 gars yi Amérique seddul sedd boobu temps yii ngeen baal ma boo xoolee ma ko manque respect waaye patriotes yi ñoom ñëpp ci ay hôtel bari na ci ñuy liggéey ci ay hôtel boo leen bëggee ay discount maanaam. comme ñu wàññil leen ak ñoomin seen boo leen woote wante wala ngeen lancé ay message patriotes yi xamante nañ ci suñu biir wala man nañu sax jël ay hôtel ay suite wala loué ay appartement Airbnb pour sénégalais yi def ay accommodation ñun ñëpp nañu communiqué bokk ci waaye ñëpp waruñoo manqué New York bu fekkee ne Macky Sall bàyyiwul détenu politique yi ba pare bàyyi Ousmane Sonko ñëwam Amérique bii na doon ñëw bu gën a naqari ci histoire àdduna bi ci président de la république bu génn réewam zéro violence pour yéen ñi xaar zéro violence du ñu def violence waaye li ñuy def xaw wi sutura bi muy doon day jéggi dayoo te mois bi la mois bi ñu nekk nii septembre le 17 le 18 le 19 encore une fois le 17 le 18 le 19 jour ñetti fan yooyu yëpp toute la journée la ñuy manifester dinañu lekk nag dinañu naan dinañu nekk ci jàmm waaye ñetti fan yooyu encore une fois mooy décider pour ñun ñu mën a teg suñu kandidaa mooy Ousmane Sonko te aussi Macky Sall mën ñoo may jàmm une fois pour toutes te mu libérer tous les détenus politiques ak Ousmane Sonko immédiatement loolu bu amee nag bu leen libéré ngeen jéggal ma boo leen fi ñëwee ambiance la ñuy am dañuy def suñu bi barbecue bu mag donc manifestation bi dañ koy soppali maanaam li nga xam ne moom mooy fete bu Macky Sall bàyyee Ousmane Sonko bàyyi détenu politique yi ba léegi ñëw leen ñu fete bu leen bàyyiwul nag ngeen ñëw ñu manifester donc déglu leen ñaari option yi ñu am bu leen bàyyiwul on va faire la manifestation la plus grande de l'histoire du Sénégal bu leen bàyyee nag bàyyi ñëpp te fekk yenn dagg ngeen seen billet ba pare ñëw leen ba léegi ñu fete ñun ñëpp ñu gise ci parc bi ñu noos ñu fete fet bu rëy parce que dañuy xam ne bu boobaa ba léegi am nañu ndam mais bu leen bàyyiwul bu Macky Sall bàyyiwul Ousmane Sonko bàyyiwul détenu politique yi te nanguwul candidature Ousmane Sonko balaa moom muy génn Sénégal di jubal Amérique na doon li koy gën a metti dans l'histoire du Sénégal gars yi nag bu leen fàtte rendez-vous bi 17 septembre 18 septembre 19 septembre les trois jours les plus importantes de l'histoire du Sénégal Ousmane Sonko waxoon na leen ko nee na leen candidature am nekkul ci loxoom moom ci loxo sénégalais yi la nekk c'est les Sénégalais qui vont décider si ils veulent que Ousmane Sonko soit candidat ou pas c'est pas Ousmane Sonko qui peut décider sa candidature Ousmane Sonko benn nit la mënul def dara Mais nous, les Sénégalais, nous, on peut tout décider. Non, on va le faire. Cela est déjà... Euh, euh, euh, euh Chana, Cécile Sow. Oui, cela est déjà programmé. C'est pourquoi il est encore important pour yéen ñi nekkoon di participer déjà continuer leen participer joxe leen des milliers s'il vous si vous pouvez ku am ay mille joxe ko ku am cinq cent joxe leen ngeen participer toujours fii nag ci Amérique. fii la ñu wax ci Amérique ngeen participer fii parce que qu'on a décidé de louer la voiture avec les trois écrans qui va montrer tous les mauvaises gestions de Macky Sall rey nit ñi emprisonné détenu politique yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne Macky Sall def na ko ci Sénégal yooyu yëpp dañ koy wane ci ay écran géant muy nekk di circuler dëkk bi di circuler booru Nations Unies di circuler dëkk bi voilà loolu la ñu fas yéene def fii incha allahu rabbi donc gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat encore digg daje incha allahu rabbi suba comme niñ koy defee toujours ngeen jéggal ñu yaram bee xaw a sutante tuuti rek defe naa yéen a koy dégg ci baat bi donc lépp loo xam ne wax nañ ko fi tey aussi muy loo xam ne lu njariñu Sénégal la ngeen xam ne yàlla la ci yàlla la ak yonentam bu tedd bi lépp loo loo xam ne wax nañ ko fi aussi loo xam ne dafa bàyyi yoon wala muy manque de respect wala lépp lu mu war a doon ngeen jéggal ñu ko te xam ne ay doomu aadama lañu te matuñu waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.